ab communiqué bu ñu fësal niki alxames ji secrétariat exécutif national bu APR mu ngi sàkku ci député yi bokk ci groupe parlementaire bu benn Bokk Yaakaar ñu bàyyi xel bu baax ci li nga xam ne loolee le parti démocratique sénégalais bëgg a def muy taxawal ab commission d'enquête parlementaire mu daal di jëm ci ñu daal di eh, saytu ñàkk validé gi ñu ñàkk validé eh, candidature seen leader naka noonu secrétaire exécutif national bi mu ngi eh, rafetlu tey ànd ci taxawaayu njiitu réew mi nga xam ne fàttali na ci bi muy wax waxtaan ak candidat yi ñu recalé ne dafa bëgg euh, fexe ba parrainage nekk loo xam ne mooy tax ñu mën di tënku ci calendrier républicain bi euh, fexe tamit ñu dal di jëmmal li nga xam ne mooy état de droit ak it dal di xàjjale pouvoir yi naka noonu sañ-sañu daluwaayu réew mi loole waral ba eh, secrétariat exécutif bu APR gis ne ñaari xalaat yooyee dafa dal di tënku ci principe yi nga xam ne moo jëm ci wàllu droit waaye tamit ni ñu bëggee fexe di waxtaan ba am ab déggoo nga xam ne moo ñeel lii di daluwaayu réew mi dafay dal di sargal ñi nga xam ne ñoo bind lu ni mel te dafay dëggal tamit ne système démocratique bu Sénégal am na maturité ba tax na secrétariat executif national local boobee di sàkku ci responsable militant ak sympathisant bu parti bi ñu nekk ci wetu yu Benno ak coalition bu majorité présidentielle bi ñu dal di gën a wëyal taxawal ay comité électoraux dal di nag encouragé kii di seen candidat di Amadou Ba mu dal di wëyal doxalin bi nga xam ne moom la nekk di amal ak askan wi leneen li nga xam ne secrétariat exécutif nationale bi sàkk na ko ci militant ak responsable bu parti bi ak coalition bi mooy ñu fexe rek ay yoon fexe ba euh, bépp bërëb boo xam ne ñàkkoon nañu ko rek euh, ci élection législative yi ñu dal di koy mën a tegaat loxo